Euh, Pape du la élection mhm. euh, maanaam euh, en général on met sur la table toutes les combinaisons possibles mhm. on met sur la table lépp loo xam ne lii xëy na bu ko nit ñi sëyalee mu indi ñoom li ñuy xaar ci résultat mhm. donc on a énormément de propositions sur la table comme li ma la wax comme Pastef fu mu toll nii moom tere na ci biiram nit joxe candidature xëy na même bu nee keneen ne candidat la dinañ ko déglu mais tollaguñu fu ñu ñuy prononcé wu toll non xam nga déjà ñun génne guñu sax candidat mm-hmm. ñun amaguñu fenn fu ñu génne candidat Ousmane Sonko dégguma ko fenn moom non amaguñu fenn fu ñu génne bon Ousmane <laughs> Ousmane xëy na dafa bëgg nekk maire Thiès aussi comme Thiès lu juddoo xëy na dafa bëgg a maire Thiès xëccoo xëccoo ji ko wala na <laughs> wala Ziguinchor wala même Ndiayène Pendaaw dëkk maamam donc euh, mi ngi noonu daal mm-hmm. euh, waaw mais daal euh, li ma la ci mën a wax mooy parti bi statut génnagul ça se fera maintenant de ça dinañ ko def euh, incessamment ci bis yu gàtt incha allahu rabbi parce que liggéey bi ñu ci waroon def pare nañ ko ci mais li ci am solo ba am ci solo mooy euh, dàq ñu dara. ci euh, nit yoo nga xam ñu jàpp nañu ay nit de valeur lañu. d'accord ñu mën a ànd ak ñoom. Mhm. def liggéey bi ci war. d'accord Birame ñu ñëw ci mémorandum bi bari na ay points bi ci bi ci gën a fës bokk na ci. indemnisation yoo xam ni ñi ngi koy sàkk pour ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan état bi def ko euh, procès Ousmane Sonko itam nekk procès bu gaaw ak yeneen ak yeneen lan nga ma mën a tënkal ci mémorandum bi nga xam ne def ngeen ko. Euh, waaw gannaaw gannaaw li nga ci wax mooy wax ni euh, am nañu ci faatu. Mm-hmm. ñi ci faatu jàpp nañu ni tey amu ci policier. dañ koy sant yàlla. Euh, amu ci militant wu APR dañ koy sant yàlla amu ci ñi ñu wax. loolu vérifié ngeen ko bu baax amu ci ban militant amu ci waaw man li ma jàpp mooy ak information yi am mooy amu ci militant wu APR. Euh, amu ci tamit. ay militant Pastef lañu kon. amu ci waaw xaaral maa ñëw amu ci tamit. Mhm. Euh, ñi ñu ñooñu ñuy wooye day ay nervi maanaam gisuñu ci benn nervi bu ci dee. Mhm. donc ay manifestant ñoo ci dee. Mhm. mooy ñu nekkoon ci mbedd mi mhm. donc ñooñu euh, ñenn dong lañoon ñoon lool force de l'ordre ak nervi euh, gis nañu vidéo euh, policier bu soxbal jëmale ci nit mu wóoru ma ndax moom moo ko faat man wóoru ma damay maandu rek mhm. mais gis nañu mu sox jëmale ci benn direction bi ñu wanee vidéo bi dañoo wane nit ku tëdd ci ci direction boobu aw sañ-sañu wax ni eh, ci sama maandu moo ko faat. mais xëy na enquête. bu amoon mën nañ koo leeral. tout à fait euh, donc loolu indi nañ ko ni. am na ay nit yu bari yu ci faatu. may fàttali euh, ñi ñuy déglu na leen benn bi mooy euh, xëy na dina diis tuuti sax ñu ñëwaat ci am nañ ñun militant bu ñu fa rayoon après benn meeting bu ñu defoon. Kër Massar Kër Massar. Mm-hmm. Mariama Sagna. Mm-hmm. Mariama Sagna enquête boobu ba léegi xamuñu kan moo ko rey. Mm-hmm. ba léegi xamuñu ko euh, sañu ma aussi wax ni ñàkk sérieux la ci ñiy def enquête bi sañu ma ko wax mais am naa droit am ci xel mu teey ci niñ ko organiser parce que dafa am yeneen incident yu am yu concerné ay militants wu APR xam nañ kan moo ko def dem nañ ci yanu lijjanti nañ ko. xam nga ñaar yooyu bu bu dajee. njort mën naa ñaaw. donc lii ñu jàpp ni bu amee enquête parce que aussi suñuy service d' enquête euh, amuñu benn naatable ci seen expérience mhm. ci seen xarañ seen mën seen liggéey amuñu ci benn natable mhm. d' euh, kon ñu jàpp ni bu amee bu état bàyyi leen ñu def seen liggéey ni mu waree bu fekkee ni Birame Souleye moo leen faat ñu jël Birame Souleye yóbbu ci kanam yoon mu dem muy ji yoon bu fekkee ni koo xam ne kii dañ ko sol tuni moo leen faat ci condition yoo xam ne wérul ak la ko yoon sant ñu mën cee tontu mën cee indi réponse yi kooku benn élément bi la ñaari élément bi mooy effectivement dañoo demandé woon ay ndàmpaay mhm. euh, jot nañu information man vérifié wu ma ko mais jot nañu information comme quoi euh, kenn koo xam ne ku jege président de la république recevoir na ci ay famille euh, ci ñoom Euh, am na sax loo xam ne ñu ngi ko ci dégg naan dafa leen wax ne nañu nañu nañu nañu nañu nañu tuumaal Ousmane Sonko loolu man wóoruma mais en tout cas information yi jot mais wóoruma dama ciy maandu tamit euh, li woon mooy bi ñuy dem fële ca ca Bignona famille victime yi ñëw nañ fa teew ak ñun bokk ci ñaan yi doon def. Mm-hmm. am na tey may wax ak yow nii am na koo xam ne ma nga Cees yàlla dogal na euh, ndox yi génn ci yaramam mënatu cee téye benn. Mm-hmm. loolu c'est problématique euh, te euh, ñu jàpp ni même bu ñu jàppee du ñoom war nañ def enquête ba waneen du ñoom mais citoyen sénégalais la euh, am na ci ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen loxo donc bu ñu demandé nañ def ay ndàmpaay pour man lu war a mën a nekk la loolu sotteegul ba tey des na ñoo xam ni ñu ngi ci kaso bi parce que des na huit personnes yoo xam ni ñu ci kaso bi boo dégloo information yi am nee nañu euh, le le le onze bii m dinañ def marche le 23 juin pour demander la libération. Mhm. de ñi nga xam ne ñoo des ci kaso bi. kon loolu tënkul lépp li nekk ci mémorandum bi. Mhm. mais indi na ay tontu. Mhm. ci yenn yi nga xamante ni par exemple. Euh, dañoo gis ministre des forces armées. mu génn defar mémorandum gouvernement bi. Euh, nee na Ousmane Sonko moo rey ñi dee ñëpp. Mhm. Euh, xam naa ni peut-être euh, doo doo doo doo warante ak man su ma la nee loolu c'est un raccourci trop simple pour arriver à cette conclusion là bu fekkee ni amul benn organe buy def enquête ci loolu ñun nag on est prêt pour déglu enquête pour wuy ci enquête ba mbir mi leer njaboot yi xam ku ci nekk sa doom kan moom kan moo kan moo far ba kanam. donc lii daal euh, mën naa la ko mën naa la ko wax ci ci ci ci même ci mémorandum M2D bi. accord euh, am na ku la déggoo si du jàpp ne ku nii list nga euh, man loolu laa mën a la seddeel ci sa ci sa wax ndax donc di nga apprécier génn bi nga xam ni président def na ko ci tournée économique bi hôpitaux yi nga xam ni inauguré na ko mu nekk loo xam ni itam demande sociale la ngay dem Kaffrine wala Tamba wala feneen loolu noo ko gisee apprécier nga ko. waaw. Euh, Sénégal bu ñu doxee ba Covid jaar fi ñëpp di jàmbat. Euh, système hospitalier bu défaillant. malgré euh, trente quatre mille milliards yi nga xamante ne bii Sénégal votal na ko Macky Sall depuis que mu nekk président. dafay jaadu dëkk bu nekk mën a ngànnaayoo hôpital boo xamante ne bii ay doomu dëkk ba. bu ñu tawatee mën faa fajo mm-hmm. donc loolu euh, amul kenn kenn ku koy ku koy ku ci ku ciy ñàkk mm-hmm. euh, ku koy ñàkk rafetlu amu ci mm-hmm. mais li ma ci bëgg a wax mooy inauguré hôpital euh, xanaa warta doon inauguré ay tabax soo déggee may wax loolu mooy dañoo inauguré hôpital ca Kédougou diggante Tamba ak Kédougou am accident euh, ñetti ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci organe de presse bu ñuy wax leeral faatu ci am ay blessé ñu jëlee leen foofu def leen ci avion indi leen Ndakaaru te ñu inauguré hôpital ci wet gi euh, loolu xëy na war naa mën a yëkkati laaj ndax hôpital bu ñu inauguré tey suba nit soxla ko ñu jël nit kooku euh, def ko ci avion indi ko Ndakaaru mooy lañ doon inauguré ay tabax la ñu inauguré ay table wala hôpital boo xam ne pare na pour faj waa dëkk ba. loolu je pense que laaj la boo xam ne mën naa taxaw. Euh, te du du du du du du lenn lu waral du lenn lu dul. mu nekk pour man une question juste qu'on doit se poser. d'accord euh, tournée yi tamit am na noo xam ne tëdd na ko euh, ndax damay fàttali ne. Kaffrine en 2015 moom diggoon na leen su ma juumul su ma juumul mën naa vérifier sama note sama ko baale Kaffrine 206 milliards la leen la leen diggoon depuis 2015 euh, Tamba bi mu dem 210 milliards la leen diggoon depuis 2013 Kédougou 109 milliards 34 euh, 000 milliards après 34 000 milliards après. Euh, euh, ragal naa ni 206 milliards yi tëddul tëddul kafrin euh, loolu lu ma lu ma ragal la ragal naa ni cent 210 milliards tëddu fa donc loolu muy constat bi ma ci def beneen constat bi mooy dafa wax ni moom ci Kaffrine fii de cent pour cent laa fi am loolu tamit jar na samp laaj. moom Macky Sall ban 100 pour cent la fay am ci ban élection parce que su ma ko déggee mu ne fii 100 pour cent laa fay am dafa mel ni dafa nekkoon di déclarer candidature am élection présidentielle 2024. parce que li wóote mooy Macky Sall mënut a nekk maire Kaffrine. non damay damay damay def lecture rek. damay def rek xam nga damay damay question. ni président. moom mooy leaderu benn Bokk Yaakaar. waaw ñu ngi jëm ci ay local. waaw dégg nga mu ne du ma fi nangu ay location récép ay récépissé. waaw dégg li mu wax bu baax. xam nga discours même ci local yi la. aussi booy wax nga wax. loolu mais non mais non non mais euh, Pape. non Pape Pape yow tamit bàyyi yow tamit bu kii tamit. ok non li mhm. lay am moom. waaw moom mooy am 100 pour cent. mais am li analyser li muy wax. man dama jàpp ni daf may cax. sa équipe buy football lan ngay wax dama koy dóor damay gagné sama yow sa équipe buy football. cent cent pour cent. mais attends oui. non mais mais Pape Pape. sa équipe buy football lan ngay wax non xaaral rek. xaaral non sa équipe buy football lan ngay wax. xaaral rek équipe am mooy Benno Bokk Yaakaar lan nga bëgg mu wax. Euh, non xaaral doucement rek. waaw xam nga je suis en train de man sama bopp. Mhm. je fais ma propre lecture. ok mën na nekk lecture boo xam ne yow partagé woo ko. Mhm. mais ça ne change pas que sama lecture la man. Mhm. sama lecture la. tout à fait man maa ni moom moo wax ne foofu cent pour cent la fay am. sànq nag ci ban élection am naa droit ne ban élection lay wax. ok élection locale lay wax wala élection législative lay wax wala élection présidentielle 2024 lay wax am naa droit poser question bi am naa droit samp laaj bi dafa wax ni booy déglu réseaux sociaux yi booy déglu rajo da naan réew maa ngi tàkk loolu la wax ñooñu lu ko def kon dafa mel ni kon rajo yi dañ ko mba takkal mbaboor naan réew maa ngi tàkk. rajo yi defuñu ko dara réseaux sociaux yi defuñu ko dara moom moo dem fekk ay nit ñu takk brassard rouge loolu je pense que réseaux sociaux yóbbuñu leen fa rajo yi tamit yóbbu lañu fa dama ciy samplaaj rek mu wax ni euh, fi muy fi muy fi muy ma jàpp ni rek euh, xëy na événement yi passé xaw na ko jaaxal tuuti et que dafa bëgg dalal xelam parce Euh, ñun man sama wàllu bopp. xam yi jaaxalu la yow. bien sûr. Ah, bien sûr. événement yi ku mu jaaxalul xanaa doo nit. waaw waaw mais conclusion bi mu ci tiré laa ci laa ah, jëmoon. ci conclusion bi mu ci tiré. ok et que euh, xëy na mu ne euh, danaa dem sondewaat comme du muy def rek à la veille bu élection di jege parce que en général tournée économique yi c' est toujours à la veille de grande échéance. Mhm. boo làmbee gannaaw ba référendum bi jógee am na. bi élection législative jege see am na élection présidentielle bi mu jege say am na élection locale bi mu jege see am na foofu tam mën nañ fa samp laaj mhm. est-ce que tournée économique la wala tournée politicienne la man su ma waroon tirer conclusion man tournée politicienne la rek mhm. man ah, encore li may wax nii man dong lay engagé donc mhm. euh, lecture boobu laa ciy def d'accord euh, ci ci ci tournée yooyu d'accord merci biram su lay ma gërëm la bu baax bàyyi la nga def ce mot de la fin ce message bi ngay passé Euh, bon di di euh, di masawaat. Mhm. Euh, ñi fi dëddu. Mhm. di leen jaalewaat seen i njaboot. Mhm. di wax suñu militant ñu taxaw. parce que li ñu nekkoon buñ ci wàcc. l'organisation à la base parce que élection locale bi pour ñun échéance la bu importante donc na suñu militant taxaw pour préparer xeex bi. Euh, luñ ci mën a gañe nañ ko ci gañe fu ñu mën a ànd ak nit gañe su nañu parti bu may ñu mën ko doxal. Euh, mhm. ci ci condition yooyu. Euh, grosso modo loolu moo nekkoon li ñu bëggoon wax di tàgguwaat suñu auditeurs yi en fait suñu téléspectateurs yi ñu doon seetaan. Mhm. biram Souleye man aussi ma ma gërëm la bu baax. su Souleye Diop moom mooy administrateur général bu PASTEF nag itam.